jërë ngeen jëf hôpital dalal jàmm bu géeje waaye li ñu l'observateur ne moo fa xew du jàmm ubbil yéenekaay bi ci juróomi téeméeri malade ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ya fa nekk woppi cancer tëral leen fa juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ci ñoom maanaam 76 jot nañu fa ñàkk seen bakkan machine scanner de simulation ba fa nekk paan ay weer a ngi ni yéenekaay bi nee nañu bokk na ci li ko waral astu di seen nas ndaw su yàlla nattoo feebaru cancer mi ngi wax ci l'observateur ne ci hôpital Dantec fa la tàmbali woon ab traitement bi ñu tëjee l'hôpital ba toj ko ci lañ ko orienté ci hôpital dalal jàmm boobee ba tey nag nekkul demee dañu koy Laurent Way ne ko dellu si waatal ndax scanner bi dafa panne hôpital dalal jàmm l'observateur nee na dem na ba léegi mënatut a benn malade bu amee cancer li sub d'attente consultation bi heure bu ñu xëyee dafay gën di yokk hôpital dalal jàmm ak la fa xew directeur hôpital bi mi ngi ci wax ci l'observateur bay dalal xel yi wàllu wiir géeram ba tey ak vox populi mi xëy xibaar ñu ne médicament bii ñu naan Biophar génnee nañu ko ci pharmacie réew mi ba ko ca pharmacie aadama yi ñàkk seen bakkan ci boobu le accident sursuwaa ne nañu lim ba na mi ngi léegi ci ñeen fukki doomi aadama ak benn yu ca ñàkk seen bakkan ki ci mujj ci blessé yi la bokkoon démb ci la faatu ba démb nag jotuñu ko woon a identifié gisuñu benn mbokkam dégguñu benn mbokkam bi accident bi amee te fekkuñu ci moom wenn këyit wuy mën a tax ñu xam mooy kan dogal yi gouvernement bi jël keroog ngir wàññi accident yi ci réew mi soleil national mi ngi ñuy xamal ne gouvernement na ci ngir ñu doxal ko ni mu ware ci ndajem conseil de la république sant na ministre yi ko a doxal ñu taxaw ci forces ak ministre finance le quotidien nañu mesure yo na am na ci juróom-ñaari mesure yoo xam ne tey jii ci lañ koy tàmbale doxal le mandat nañu waaye suñu moytuwul nag saafara su jàngoro la nar a ndax ci dogal yi am na ci yoo xam ne transporteurs yi ànduñu ci bu ñu demee ba gisuñu lu ñu xam nag ñoom transporteurs yi ci grève générale ci la jëm ñu dem ci journal las mi xëy di ñu xibaar ci xëtamu njëkk ne Macky Sall sant na gouvernement journal Tribune jàngate mooy Macky Sall jekkali na góorgóorlu yi rapportu Cour des comptes bi fi indi woon coow enquête dina kay ci la xëy mi ngi ñuy wax ne gouvernement bu Sénégal tayul di ci wax ngir leeral askan waaye dalal xeru partenaires yi ginnaaw félicitation yu bàyyeer yi nee nañu Cour des comptes mën nañoo compter ci premier ministre Amadou Ba ngir ñu lijjanti yëf yi yëf yi mu di rapportu Cour des comptes bi le témoigné nee nañu waa ministère des finances ñoo insisté mu nekk jamono ji yéenekaay bi nee nañu fa la tëjee débat bi jóg fan yi mu di Modou kan la war a bëreel Modou Lo nee na du xaar benn mbër ñu ne ko ndax pare nga ngir bëri ak Ama Baldé Modou ne leen suwéré na dem bëri ji ak Gris Bordeaux ndax bi ma blessé xaaruma woon combat Modou Lo ak booy Niang 2 source nee nañu léegi tey mu taxaw mënaat sërub Modou Lo di biram ñing ne ñu ci journal bi Modou pare na ngir jël Boy Niang 2 mbër meneen muy laaj Boy Niang 2 la sinekaay nee nañu moo di le tigre de Fass Gris Bordeaux nee na dafa bëgg a bëre saison bi jeex te Boy Niang 2 la soxla